Etienne jën ñëwaat bi yoon pour xool soble bi ñi nga xam ni fertilisation ay engrais soluble la ñuy utiliser parce que ñoom goutte à goutte la kon yan engrais ngeen di proposer pour loolu. Euh, Mohamed euh, maa ngi lay nuyu di ñëw ci euh, wàllum irrigation goutte à goutte. Mm-hmm. ñu am tànk wala ñu am tànk di ko jaarale ci pivot. Mm-hmm. ak ñëpp ñu am aussi tànk wala mélangeur d' jaaralee ko. Eh, ci bouteille waaw donc xeetu yooyu lu am solo la donc wala ñu am barigo wala bassin donc mélanger engrais aussi pour ñu arroser ko ci tool donc ñooñu dañuy jël engrais yoo xam ne day gaaw a set engrais solide bi donc xeetam engrais solide yoo xam ne boo ko defee rek day tax euh, mu seey mun a dem gàncax bi direct boo xoolee ñu jël goutte à goutte wala ñu jël pivot parce que seen rendement ëpp fuuf euh,

boo xam ne ci la ñuy commencé du jaar ci seel mhm. mais dañ koy wis ak seen loxo directement euh, ci tool bi. Mhm. donc moom moo nekk euh, seen tos bu njëkk. bu njëkk waaw. donc bu ñu après tracteur bi day jaar donc loolu yëpp engrais de fond bi dugg na. Mhm. mooy DAP 18 46. waaw donc pour euh, préparer vraiment suuf su am doole gàncax bu ñëwee rek am na lépp boo xam ne dina ko fekk bu njëkk bu gaaw a

donc 3 à 5 kilos par irrigation et par hectare. moom bu nga doon tànk bi rek seey na dem na lu am solo la euh, bu ñu fa jógee euh, ñu bëri dañuy def euh, lu ñu wooyee sulfate de magnésie sulfate de magnésie engrais boo xam ne day indi magnésium day indi suufu gàncax bi donc ferñeent yoo xam ne mënut a ñàkk parce que am na solo. Mhm. Mhm. mooy sulfate de magnésium bi. mooy sulfate de magnésium bi. sulfate de magnésium bi moom laa doon wax. Mhm. lu am solo la euh, départ bi. Mhm. donc euh, lo xamné day indi euh, sulfate soufre ak magnésie. Mhm. donc lu am solo la bu ñu fa jógee. ñu bari aussi dañoy def lu ñu woowee MAP. mono ammonium de phosphate. mono ammonium de phosphate bi donc day indi douze soixante et un zéro zéro la douze soixante et un zéro day indi azote ak phosphore surtout phosphore amna am 61% soixante et un pour cent donc pour fixer reen yi la reen am doole. gàncax bi gaaw a mag. Mhm. loolu tax MAP man engrais boo xam ne dama ko naaw parce que day seey léegi deuxièmement aussi moom mooy tax gàncax bi jóge suuf lu gaaw a gaaw. MAP mhm. lu am solo. Mhm. bu ñu jógee ci MAP ñu bëri dañooy dem ci nitrate de calcium. mu ngi indi azote ak calcium donc lu am solo par rapport ak euh, gàncax bi surtout calcium bi. azote bi def koy mu gaa mag loo donc deuxièmement aussi calcium bi aussi mu ngi dëgëral gàncax bi. donc pour que euh, mu rafet suba mu am yax boo xam ne dëgër na. Mhm. donc calcium lu am solo la ci ganja pour que mu gaaw a préparer wu am doom wala tour tour. Mhm. donc buñ ñu fa jógee euh, ñu ngi dem ci tour tour, ñu ngi dem ci aussi am doom. Mhm. surtout noison bi. boo bëggee du du wot lu am solo la ñu ngi dem ci engrais bu ñu tuddee donc solupotasse ñu ko tuddee sulfate de potasse solupotasse moo gën a nekk de meilleure qualité. parce que dafa gaaw a seey dafa gaaw ini seey donc solu potasse boobu day indi suuf day indi potasse donc ñaari ferñeent yoo xam aussi gàncax bi soxla na ko bu muy euh, tóor tóor ak bu muy am doom mhm. donc ñu bëri aussi euh, dañ koy dooleel ak nitrate de potasse nitrate de potasse nitrate de potasse aussi day tax aussi gàncax bi magam dem par rapport ak nitrate bi azote bi deuxièmement aussi potasse bi aussi gën renforcer aussi sol potasse bi parce que lépp luy xeetu potasse day tax euh, tóor tóor yi bu mu ko deuxièmement bu ay jaar genre xaal wala melon day yoko suukar mhm. donc mo gëna a xonk ci biir wala bu melon aussi suukar si bëri. aussi ci biir aussi fermeté bi ci biir c'est-à-dire nu mu ñam ci biir aussi mo gëna fess donc am solo la parce que day diesel, day diesel dom, mhm. day diesel dom. mu nek soblé mu nek tamaate mu nek lépp day diisal doom même bu ka arboriculture aussi. Mhm. lu am solo la moom mooy tax doom yi mu jur lu bëri doom yi ponkal aussi du wot.

Mhm. donc euh, mun nañ commencé ci calif bi donc loo xam ne xob yi xob yi ci xob yi lañ koy pompé 12 kilos à l'hectare donc aussi ñu bëri dañoo jël benn kaas ataaya def ko ci benn pan donc pompé xob yi boo ñeneen ñi dañoo jël aussi nitrogofol euh, démarrage donc aussi pour euh, mu am indi NPK et puis indi ay yeneen xeetu ferñent yoo xam ne oligo-éléments yi moom mooy mag départ bi. donc buñu tollé ci am ay doom aussi ñom ñu def Nutricofol 4 17 28 pour mu renforcer tóor tour bi dom yi aussi gëna reuy aussi gëna dom yi gën a donc Nutricofol 4 17 28 amna donc sulfate de zinc aussi. amna na ci xétum engrais yi la. oligo mhm. marmal bi aussi day compléter yeneen xét yeneen xétum ferñeent yo xamné bokul ak euh, NPK c'est-à-dire day gëna a jox doole gàncax bi ci loo xam ne gàncax soxla na day éviter luñ wax carence parce que gàncax bu manqué lekk rek euh, des fois da ngay yakarna dafa fièvre mais du feebar ay xeetum carence carence yo xam manké nako pour jour lu mu wara juré donc xeetum engrais foliaire yi ak euh, xeetum oligo marmal oligo élément yi bu fekkee ko ci oligo marmal ak euh, oligo drift ak sulfate de zinc yooyu ñu ngi koy fekk ci xeetum engrais yooyu. Mhm. pour indi oligo éléments yi moom oligo éléments yoo xam ne gàncax bi soxla na ko comme genre vitamine moom mooy tax mu gaaw a euh, mag aussi te jur lu war a jur lu mu war a jur donc mu jaare ci xob yi mu jaare ci suuf lu mu soxla yépp ci ferñeent euh, wala ci NPK bi azote phosphore ak potasse gàncax bi am na ko. Mhm. magam dina rafet dina joxe rendement yi mucc ayib looloo tax tey. ñu utiliser engrais solide wala engrais fo ak engrais foliaire tey ñoo ëppale rendement ci tamaate wala ci sol ci bépp xeetu maraîchage ak ci wàllum garab. donc lu am solo la engrais solide bi ñu bëri ci nit la ñuy dem donc parce que moom moo ëpp rendement parce que gàncax bi day gaaw a see gàncax bi jël lu mu soxla léegi donc pour wone euh, rendement yu mucc ayib buñ ko defee donc nañ xam ne jóge nañ ci rendement yu ndaw dem ci rendement yu kawe. parce que entreprise yu mag yi yëpp ay rendement yu kawe la ñu am. donc ñu ngi koy jëlee ci xeetum engrais soluble ak engrais foliaire yi tey yoo xam ne sigoñ sole boo am na ko jërëjëf.